yéen ñi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee sax su ne ak sunu ay programme daleen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy door ak ñooñu APR yi nga xam ni amaloon nañu mitin foofee ca Podor mu mel ni nag mbooloo mu takku rek moom moo fa teewoon département bu Podor nga xam ni Abdoulaye Daouda jàlloo ak Cheikh Oumar Anne ñoom ñoo ko jiitee wane nañu ni rek Fouta Macky Sall moom moo fa daal di teg tànk ñaari jëwriñ yi nag ci seen lëkkaloo wane nañu ni askanu Podor ak bu Sénégal yépp rek ñoo ngi ci ginnaaw ki nga xam ni moo di njiitu réew mi ñu woyal utali ca pencum ndawi réew mi Antoine Félix Diome di jëwrin bi gàlloo kaaraange biir réew mi jàkkaarloo woon na ak commission des lois bu assemblée nationale euh, keroog ko fanweeri fan ak benn ci weeru mars bii ñu génn ngir leeral li tax rek ñu daal di bëgg a toxal euh, local yi mu mel ni kon li ñu ne woon yooyu lay jongante dañu koy amal gën gaa yéex ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru euh, mars atum 2021 ci loi bi xam ni moo nekkoon numéro 2019 16 29 novembre 2019 euh, loolee mënatu la nekk moom jëwrin bi nag nee na crise sanitaire bi nga xam ni euh, moo tax ba ko nationale bi nga xam ni mu waroon a fixé date exacte bi ñu waroon a amal yooyu lay jongante euh, daal di rek weesu juróom benn weer ba tey bokk na ci li tax ñu daal di dàq jongante yi mooy rek waxtaan bi nga xam ni amoon na ci càmbaru ku fichier électoral beek xayma processus bi nga xam ni ñi nga xam ni ñoo fare ku gi ñoom ñoo ko sàkku woon ak lu mu ci mënti doon rek Félix Diome xamle na ni projet de loi waa numéro 5 2021 bi nga xam ni daa jëm ci toxal jongante yi ak yokku mandat ñi jiite gox euh, yeeg goxaat yi bu dee jëmmal nañu ko tey ca pencum ndawi euh, réew mi yooyu lay jongante dinañu ko tëgg gën gaa yéex ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février atub 2022 boobu toxal nag ba 2022 waa parti démocratique sénégalais ñoo ngi wëy rek di wane seen ñàkk ànd ci euh, loolu bu ngi sukkandikoo ci seen jiital groupe parlementaire PDS daa ñaaw njortu ni waa majorité bi amaana rek li ñu bëgg ci toxal local yi rek mooy ngir ñu toxalaale yeneen jongante yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a topp mooy législative yi ñu war a amal ci 2022 ak présidentielle bi war a am ci 2024 ba tax rek euh, ñu ni boobule projet de loi am na loo xam ne rek lu ci euh, làqu la ci ginnaaw looloo tax ñu bëgg euh, toxal local yi ngir bu ñu ca noppee ñu daal di mën a toxal législative yeeg présidentielle yi nga xam ni ñoo ci war a topp loolee nag moom député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moo ngi ko xamle gannaaw bi mu yëree projet de loi numéro 5 2021 bi jëm ci toxal local yeek yokku mandat élu euh, locaux yi ñu jàll ci li soxal euh, mbasum euh, covid 19 beek tukki nemmeeku bi nga xam ni moom la ci dijje rawultu di amal fii ci réewum sénégal boobule visite nag jur na ay coow ci monde médical bi ndax infection la ko marseille bi dajeegul ba rek ak ki nga xam ni di professeur moussa seydi nga xam ni sax ñëwam fii ci ndakaaru ci mbedd mi la ko daal te fak médecine nag ak ci barab yi nga xam ni fa la ñuy fajee feebar yi wàllante nee nañu professeur Seydi dañu ko bëgg faagaagal euh, ba tey ànduñu ci li nga xam ni moom la jiitu réew mi daal di takkal raaya di je di raaya ordre national du lion yenn ci ay médecin sax nee nañu boobule raaya professeur Seydi moom moo ko yeyoo ndax jéego yu am solo yi nga xam ni euh, def na ko ci xeex mbasum covid 19 bi ci réew mi ñu woyal ak coowal euh, ki ne woon yonent la foofe ca Kolda lu yees nag am na ca ndax ne woon victime am la ñu ni woon jabaram la yëkkati na ay kàddu euh, jëmale ko rek si li ñu ne woon day sëy ak Baba Malado moomule li mu xamal sàmba Diawo di benn fondateur bu centre d'accueil mooy euh, ba mu nekkee tout tànk la ñu ko doon wax naan euh, sëriñ bi la ñu koy dencal ngir bu màggee mu daal di koy fas soxna comme ñoom seen aada ni ñu koy defee mu teg ca ni ba mu tolloo si jàngub alxuraan la ñu ko yóbbu ca këram ngir mu jàngal ko waaye nee masul seeq dara ak Baba Malado moomule teg nga xam ni moo tukkee woon ci test xale bu jigéen bi euh, daa wane woon ni rek moom xale bu jigéen bi kenn masul àgg ci kawam mu mel ni kon loolu setal na euh, li nga xam ni la ñu doon toppee ki ne woon yonent la euh, te mu ñeer rek mbirum turnement de mineur ak pédophilie ñu àddu ci wàllu tàggat yaram ak lu soxal kan Cameroun 2022 léegi nag leer na ci kañ rek la ñu war a amal yooyu le jongante te mooy li ko dooree juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ba juróom-benn fan ci weeru ko février atum 2022 xibaar boobu nag confédération africaine bu football moom moo ko xamle lu toll si ñaar fukki équipe ak ñeent ñoom ñoo koy euh, xëccoo mu bokk ci Sénégal bi nga xam ni mooy vice champion euh, bu Afrique ak Algérie mi yor coupe bi jamono ji ci tàggat yaram la ñuy desandi ngir jeexal xibaar yi ak xibaar bu tiis bi nga xam ni moo wàcc ci football sénégalais bi te mooy génn ko àdduna baaba Tandian euh, mi nekkoon directeur technique bu Teungueth FC gannaaw feebar bu yàgg nag bi nga xam ni moom moo ko tëraloon mbir mi nag tey si àjjuma ji la daal di xew foofee ca këram ba ca Bambilor bu Sénégal 5 ak bu 5 TV ci sama kàddu euh, ñoo ngi koy jàll Sénégal yépp te di ko ñaanal rek sunu borom yërëm ko te xaare ko aljana kon xibaar yi buur na ma jox leen dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee ba suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf.